lii mooy li Yeesu Kirist feeñal te mu tukkee ci yàlla ngir mu woon ay jaamam mbir yi dégmal di ñëw yónni na malaakaam ngir mu xamal ko ab jaamam yowaana kooku mi ngi seede fii li mu gis lépp maanaam kàddu yàlla ak seede suñu ñu seedeel Yeesu Kirist barkeel ngeen yow mi jàng ak yéen ñiy déglu wax yi jóge ca yàlla te di sàmm li ñu ci bind ndaxte waxtu wi jege na man yowaana maa leen di bind yéen juróom ñaari mboolooy ñi gëm te nekk ci diiwaanu asi ne yiw ak jàmm féete ci yéen jóge ci yàlla moom ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg yiw woowu ak jàmm jooju ñoo ngi tukkee it ci juróom ñaari xeli yàlla yi nekk ci kanamu ngangu nem yàlla tukkee it ci Yeesu Kirist seede bu takku bi moom taaw bi maanaam ki jëkka dekki di buuri buuri ci kaw suuf yépp na ndam li ak nguur gi féete ak Yeesu Kirist ba faw moom mi nu bëgg te yiw ci sunuy bàkkaar ak deretam ji tuuru te def nu ay buur nuy jegeen yàlla baayam di ko jaamu amiin gis leen mi ngi ñëw ci niir yi te ñépp dinañu teg seeni bët ci moom ba ci ñi ko jam sax te xeet yi nekk ci kaw suuf yépp dinañu jooy ndax moom waaw amiin boroom bi yàlla nee na man yàlla maay alfa ak omega maay ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg man aji kàttan ji man yowaana seen mbokk di seen nawle ci fitna ci nguur ak ci muñ yu nu am ndax sunu booloo ak yéesu maa nga nekkoon ca dun ba ñuy wax Patmos wàcce woon nañu ma fa ndax li ma doon waare kàddug yàlla tey seedeel yéesu xelum yàlla soluma ci bésu borom bi te noonu ma dégg ci sama gannaaw baat bu xumb nigliit naan bindal ci téere li ngay gis te yónnee ko juróom ñaari mbooloo yi ñi gëm ca dëkk efes samirn pergaam catiir sard filadelfi ak lawdise noonu ma gestu ngir seet ku doon wax ak man ba ma gestoo yem ci juróom ñaari làmpi diwlin yu wurus gis ku taxaw ci biir làmp ya nuroo ak doomu nit mu sol mbubb mu gudd takk ngeñaayu wurus ci ndiggam boppam ak karawam weex tàll ni perkaal ay bëtam di xuy ni safara ay tànkam mel ni xànjar bu yanj bu ñu xelli baatam di riir ni duusi géej mu yor ci loxool ndeyjooram juróom ñaari biddiiw jaasi ñaari boor yu ñaw di génn ci gémmiñam xar kanamam leer nàññ ni jant bu njolloor naka laa ko gis di daanu ci ay tànkam ni ku dee waaye mu teg loxo ndeyjooram ci sama kaw ne ma bul ragal dara maay ki jëkk te maay mujj maay aji ki dund dee woon naa waaye maa ngi di dund ba faw yor caabi dee ak ju barsàq kon nag bindal li nga gis li am léegi ak li nara ami gannaaw gi juróom ñaari biddiw yi nga gis ci sama loxol ndeyjoor ak juróom ñaari làmpi diwlin yu wurus yi ay mbooti yàlla lañu te lii lañuy tekki biddiw yi ñoo di malaakay juróom ñaari mbooloo yi ñi gëm juróom ñaari làmp yi ñoo di juróom ñaari mbooloo yi